di nuyu di leen ziyaare bu baax a baax di nuyu bureau municipalu commune Sagata sama collègue yi di adjoint maire ñoom ñëpp ñu ngi ni teew di nuyu conseillers municipaux yi nga xam ne ñoom lañ bokkal mairie bi ak commune bi di liggéey ci luy suqali gox bi di nuyu militants yi bokk yi kilifa yi ñëpp ñi ngi xam ne ñu ñuy déglu fii ci département ci Kébémer de Kébémer wala ñu dañuy déglu ci réew mi ñu di leen xamal ne bi ñu xamee ni si le président Bassirou Diomaye fay jël na décision pour ñu dem élection le 17 novembre 2024 nun taxaw nan ab seetlu ci sunu parti ci kuréel gi nga xamee ni si mooy lañuy wax alliance pour la réforme et le développement Aar Sénégal mu nekk un parti légalement reconnu waxtaan nanu ak sunu militants yi am ci Sénégal yépp waxtaan ak sunu militants yi nga xam ne ñoom la am ci département de Kébémer waxtaan ak sunu militants yi nga xamee ni si ñu ngi nekk fii ci commune Sagata déglu nañu ñenn nat ci chef de village yi chef de village yi juróom-ñaar fukki dëkk yi ak ñett donte ne jotuñu ñëpp waaye ñu ci bari wax nañu ak ñoom kilifay diine yi nekk ci gox bi ŋànk ko ñëpp wax nañu ak ñoom laaj leen seen xalaat nu conseillé nu teg nu ci yoon nu déglu jigéen ñi déglu xale yi bi ñu paree ci loolu nag dañoo woote la ñuy wax assemblée assemblée général mooy daje moo xam ne képp kuy responsable politique te bokk ci suñu kuréel gii di ARD te daan jàppalante ñun ci politique ci gox bi woo nañ la nga teew démb bu ñu teewee diggante juróom-ñetti waxtu ba benn waxtu ñu ngi toog di waxtaan di sottante ay xalaat li nga xamee ni si moom lañ ca jëlee mooy benn décision décision bi mooy ñun jël nañu librement kenn forcé kenn bundu ñoo jëlal sunu bopp sunu décision ne dañuy jàppale liste bi nga xam ne mooy liste Pastef ci élection yii nu jëm muy 17 novembre 2024. ñu xam ne engagement boobu ak décision boobu ñu jël dañ ko def sans condition nous l'avons pris librement et sans condition ni pression. kenn forcé wuñ ci dara tegaluñu kenn nit benn condition boo xam ne moom moo tax ñun tey ñu ànd ak Pastef ñun ñoo jëlal suñu bopp suñu décision décision boobu ñu jël nag fas nañ yéene ni nu ñu xamee ci lépp lu nga xam ne dugg nañ ci te engagé wu ci ñu dem ca ba jeex noonu lañ fas yéene def ci élection yi di ñëw bépp taxawaay bu mu laaj ngir ñu mën a fexe ba li nga xam ne moom la liste Pastef bii ñu présenté ak ku mu man di doon ci département de Kébémer ak liste ba ku ci mën a nekk au niveau national ñun danañ ko wote te danañ liggéey ku ñu jàppale ci ñu wote ko ngir ñu fexe ba nga xamee ni si président Diomaye Bassirou Diomaye Diakhar fay dina am sox dina am li soxla ci ay député ngir mën a liggéey liggéey bi nga xam ne moom la bëgg liggéey te du ci am benn jafe-jafe engagé wu nañ ak moom ci loolu ci buur lool nag ñi ngi woo képp ku nga xam ne daa nga nu jàppale wala bu ñu masaan joxoñ nga dagg wala bu ñu masaan jóg nga jàpp ca noo ngi lay ñaan nga ànd ak ñun ci liggéey boobu ba bu ñu eggee ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre deux mille vingt quatre nu mën a jox list liste Pastef boobu ek euh, benn victoire wu leer naññ ndam lu leer naññ fii ci département de Kébémer ba pare jàpp ci nag pour mu am ndam lu leer nàññi ci li nga xam ne moom mooy Sénégal may wax nag sama moroomu maire yi yi nekk ci département de Kébémer. ne maa ngi leen di woo ñoom ñëpp di leen tàllal loxo ngir ñu ñëw fekk si ma ànd ak man ci liggéey boobu ñu mën a jox président li nga xam ne moom la soxla bu ñu eggee ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre 2024 jërë ngeen jëf